Avec Gaia Info, obtenez des informations sûres et fiables. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك له الملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لا شريك لك ngeen xoolee fii ñu nekk nii fii mooy buntu euh, bureau Ali béréb bi ñu nekk moom la ñuy wax bureau Ali waaw comme ci ngeen fii ñu gis moom buntu bureau maanaam ñu ñu war a ñu la ñu ñu xaarante tamit ñu liggéey mais yi nag moom ngeen ñoom ñooy toog di su nekk ñoo àndaloon kan moo ak kan moo ñëw mbokk yi mi ngi noonu bureau Ali mi ngi noonu fii de boo fi ñëwee nga xam ne àddunaa ngi nii ñëpp nag fii la ñuy préparé wu mën a dégg fële nga ñu nekk ci hymne bi comme ni ma ko waxee woon hymne hymne hymne béréb bi hymne hymne Makka hymne jamono bi nga xam ne mooy jamono aj fii nag boo fi ñëwee boo fi jógee ah lenn rek moom moo war a nekk sa yitte mooy concentré wu ci li nga xam ne moom moo war a def muy aj bi nga xam ne moom ngay def fële ci màkkatal mu karam fii nag dañuy ñaan doomu aadama ñu nekk ak seen sago ñu ànd ak dal ñu muñalante wante bu ñu jàppalante béréb bi nag béréb bu yéeme la macha allah soo fi mësul ñëw boo fi ñëwee sa yaram dafay daw ñaar ñoo gis ñu taxaw benn kàddu bi la ñuy wax labbayk allahumma labbayk mbokk yi béréb baa ngi nii tabarakallah gis ngeen ko yaa ngi nii bis yi ngeen gis nii ñoom ñooy jël doomu aadama yi yóbbu leen fële nga xam ne mooy Makkatal Mukarrama gis ngeen bis yaa ngi nii gis ngeen am na ñoo xam ne fii ci war nañu pare nañu dem nañu yi ci des ñoo ñooy wante jamono bii ñuy wax ñi nga xam ne ñoom ñoo des ci buntu aj bi yëpp fii mu nekk nii ñoom ñooy gis ñoom apparemment ñoo fi nekk. waaw kon ñu ngi dem seeti imam Mara ci groupe bi nga xam ne moom la àndal لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك والنعمة والنعمة لك mbokk yi ñu ngi leen di nuyu jamono bii ñuy wax ak yéen nag ñoo ngi fii ci bureau Ali bureau Ali nag dañu wax ni fii la ñuy fas yéenee def ak bi nga xam ne moom nga war a def fii ngay dugg boo fi jullee géeyo boo fi jullee timis nga wàññi géeye julli sa ñaari rakka rakka bu nekk nga wax ci gannaaw fatiha yaa ayyuhal kaafiruun beneen rakka bi nga wax qul huwa allahu ahad soo paree nga yéey ne ak bi nga xam ne moom nga war a def maanaam mën na nekk tamatu mën na nekk ay frère mën na nekk kiraan aussi gis nga béréb bii képp koo xam ne day dem Makka boo ñëwee fii boo ñëwee fii ñoom ñëpp fii nga leen di fekk barakallahu fikum ñu ngi nii nag mbokk yi ñu ngi nii mbokk yi béréb baa ngi nii ngeen ñëwee fii te ngeen xam ni yàlla daal kenn la ñëpp a yem ñëpp solu ñëpp a yem lañu solu ñëpp bokk loo xam ne moom la ñuy wax dégg ngeen chanson bi maanaam hymne bi hymne boobu ngeen dégg noonu moom mooy hymne bi nga xam ne moom la ñuy wax ginnaaw bu ñu jógee ci béréb bi amatul beneen kàddu boo xam ne mën nañ fi wax pour labbayka allahumma labbayk labbayka la mu nekk nii ah seet bu ngeen xoolee fii daf na am benn xeet boo xam ne ñoom ñoo ci nekk di waxtaan leen waa jàkk ji ñu ngi ñëw di leen wax leen ne daal ngeen waxee ndànk ndax am na ñeneen ñi nga xam ne ñoo fi nekk ah ngeen bàyyi leen xel ndax ku si nekk daal am na sa soxla boo xam ne moo la fi indi tabarakallahu mu ngi noonu bureau a léegi noonu mbokk ak gi nag commencé na ci ñii nga xam ne def nañu seen yéene bu baax yi mu nekk ni nag tere lañ leen ñu wax lenn na leneen loo xam ne bokk la ñu jëm caañ wa illaa boo ko mënul ba mënoo dal, daal dal, neen daal da jàng ci hymne bi rek foo toog rek di sabbal yàlla Avec Gaia Info, obtenez des informations sûres et fiables. Ak Gaia Info, di am ay xibar yu wer te wor. Gaia Info, xibaar yu wer te wor.